que ni mu melni mu changé dougal ci sen loxo parce que loolu moy citoyenneté dougal ci sen loxo c'est-à-dire euh dem fi nga xamni fa la décider muy ci maire yi wala conseil yi ñu nek ñu bok ci sen biir mën a wax ak ñom aussi li xew sen gax ak li xew sen deug li xew sen deug bi Thiès nan lañ koy mën améliorer. Thiès de dëgër parce que Thiès jeune yeb ñi ngi tok amul emploi bon xam nga c'est lié hein, dans les mairies nga xam ni doo ay jeunes 80% vingt ay suma morom ñi ay lañu ngi jeunes ay 20% lañ fa donc dañu wara renverser renverser tendance bi jeunes yi bokk ci li ñuy décider pour maintenant dénoncer justement ces problèmes euh, de d'environnement euh, de poubelles, etc., d'assainissement parce que sans ça sans un environnement sain ben investisseur du ñëw investir ci dëkk bi. Euh, économie bo xam ne day jeunesse bo xam ni dañuy consommer jeunesse bo xam ne nii dynamique su loolu amul ñëpp xam ni euh, loo gën di nekk mag di gën a consommer mu ci lekk bi mu ci bi mu ci alors que nous dañu war a consommer loolu nag consommation boobu mooy tax économie bi économie bi tàng mën a jëm ci kanam am ay concurrence mo am ay pas le monopole ñom ñu ni légui est-ce que nan lañu ñu débloquer situation Thiès bi ñu réfléchir euh, def suñu analyse euh, ak suñu introspection dañu xol ni pratiquement jeunes yi dara nekul manam on va dire nafa pa moko yoré wala mère mais ñom c'est nafa dara def ci nekul donc il faudrait bien commencer par là peuple bi ñoo fi teg ki fa nek mais ki fa nek aussi dama wax ni ñu changer parce que aussi problème état la volonté gouvernementale parce que man je dem dans le milieu rural bàyyi Toubacouta et cetera mais da ngay dem foo xam ne aussi da ngay gis maire boo bon euh, pratiquement entre guillemets euh, il est très là. Hein. bon voilà gis-gisam soriwul gis-gis voilà nga nga am conseiller boo xam ne nii am bac plus cinq te numéro wax hein te kooku aussi dugaloon ko dans les instances de décision bon projet bon, ñu fa structurant, aussi de faire, de faire. foirer, de faire foirer, parce que

yow yaay gérer sa gox ak sa kii donc affaire u président affaire u structuration yooyu yëpp ñun aguñu foofu dinaa joxe moyen yi parce que Sénégal dañuy wax moyen rek mais xam nga moyen du faj yëpp hein. volonté mooy njëkk ah volonté mooy njëkk ak taxaw foo xam ne ñi xeex pour loo xam c'est pas juste et puis euh, solidarité bi ñu fàtte ñun solidarité bi nga xam ni moo ngay avancer parce que juróom nit fuñu ñu nekk ci lay di xeex leen ci lay gën a gaawee que benn nit wala ñaari nit. na aussi euh, structure financière yoo xam ni dañuy joxe ay moyens dañuy joxe appui les ONG mais yooyu kenn du ko gis. Thiès ñun ñoo fi ëpp ay ministres ñoo fi ëpp ñu réussir ñu def les écoles là ah d'ingénieurs ñoo ko fi ëpp donc su amee solidarité am jàppalante et puis euh, bañ l'injustice di ngeen xam ni yu bari nañ ko mën résoudre fii. Ben, il faut être courageux ah Thiès pour nga ñëw fii faut être courageux parce que soo génnee na nga xool ni le désordre là dans les rues là dañ ko ordonné suñ ko ordonné kii investir au moins dina xam fils. c'est un environnement sain mais su ñëwee nga xam ni du xam sax ban bu lay commencer sous demee mairie bon amna ay ñetti wala ñenti pas yu koy recevoir fofu hein. Ah. mu dem feulé conseil régional pareil mais su génnee danaan mais attends non il faut nous changer yooyu. pour mu une deuxième ville de économiquement il faut mu développer. Maintenant, nañ ni nag deuxième ville en matière d'école. parce que am une école yu bien nous fi la ñuy mais après l'école, le travail amul amul liggéey maa ngi jóge léegi booru usine iran bon lu fa xew est ce que mi ngi tourner est ce que tourner wul une belle infrastructure comme ça aujourd'hui c'est Iran de nekk loo xam que da ngay gis jeunes yi di doxee ville ba foofu pour dem le matin comme dans le temps comme dépôt comme DN mais tu vois personne mais nañu dem c'est c'est Iran. est-ce que ça ngi fonctionner qu'est-ce qui se passe nañu dem c'est au moins des investisseurs ailleurs ñu avons assemblée fi ay ay a une marque STS hein? pareil c'est le meilleur emplacement mais STS nañu dem wuti ay investisseurs Nous xam dañu ils mettent des capitaux comme ça les yi mën a mais pour ça comme nous avons ko il faut nous régler le problème de l'environnement suñu patron bi fi yalla nako yalla yeureum yalla yàlla xare ko àjjana mom mo doon xex pour l'unité du parti ak problème ñi aussi mom mo fi nekkoon cohésion maintenant ku ko bëgg a remplacer te am compétence compétences, mais am nga ci droit parce que parti socialiste dafa structurer de telle sorte que même man mi sax suma ma man ni damay présenté au secrétaire général man mi nekk y yore coordination Thiès